arbitre bi sifflé na Malick te nattangoo la ñu fekkaay sifflé na mais bëre bëre bu buggee xeexee eh! Moussa takk na ko xale ba rasu na takk na ko rasu na na ko daan na ko Moussa Ndoye daan na ko waaw lamba nga noonu perte bi moo deux minutes vingt-sept secondes bu perte bu perte bee indi tey lay doon champion war naa mën a yedd mu daan te jógal lii du dara a jóg ci victoire ci défaite bii la war a jógee. bëre nga bataa te dafa bëre ñu daan ko. dafa bëre ñu daan ko ma ngay tekki gàllaaj waaye daanu tele laa terewulaa doon mbër. déedéet daanu taxul nga ñàkk championnat bi. defar waa teg dellu si.